السلام عليكم أعوذ بالله السميع العليم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناو بنيو سانت يا لديس ديكو سانت دي جولي سيونت بوتيت بي صلى الله عليه وسلم دي نيو سنو موكو جانبي di nuyu sénégalais yëpp kenn ku ne foo qui ci ce tur ak sa sant di am mbégte mu reuy ci point de presse bi nga xamné ne Abdourahmane Diaw mi dom coordonner les activités mi ngi ko organiser ci moins de 24 heures pour li xew yàlla dëgg la bëgg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

motax tax mbokk yi bi bi ma nekkee ci kasso bi jakarlo ak le juge suma ma jumulee doyen des juges jamono jooju Mao Sémoula dafa tok dama jak ci bureau ma ngi sol gram bu weex di réré fekk mom mu ñu duggal ma ci cave bi 7 h du matin mi ngi ma recevoir 17 h 40 mbokk yi te maa ngi tok ci benn xéer la tok néeg ndaw añuma sax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 waxuma ci dara buuxal soo déggee may mooma jàll rek buuxal day am yenn saa yi nit woo ma rek ne ma Touba de ñaari nit ñetti nit ña ngay xuloo de ma ne ah affaire baa ngi dox kat yenn saa yi Abdourahmane Diaw woo ma ne ma diw de nee na moom ak groupe ba nekk fële ak groupe ba nekk fële ak ma ne affaire bi law na kat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 ñii may àndal muy communicateur traditionnel yàgg nañu ak yàgg na ñoom de déedéet ku leen ku leen ku leen fi gis la du occasion de seen ñëw fii Al Hassane ñii mag ñoom mag ñoom mag ñoom daa yàgg dafa yàgg de ma dellu si ci programme Soxna May bi dafa maa ñor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 sur euh, le le Fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde Sang Sec amène expérience bu y a 2000 milliards de dollars qui tournent autour de ce fonds nous une possibilité capter 580 milliards de francs CFA 1 milliard de dollars pour injecter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 allo soxna May que day té téléphone dal composé numéro vert ñu la allo soxna May nga am proposition ñetti silver leket gold ak leket platinum ñetti leket yoyu soko xolé May ci parce que mom dafa wara la mère Teresa est temps modernes en Afrique.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

Rawah bin Nabi Ali an li Ibrahim Allah hilaluhu Hilalun badda lin nazirina jamaluhu Hilal Rabbi in fi ja Muhammadun Fatamallana bushra wa amma nawaluhu Syekh al-Islam moko wax Ma wax Syekh Mahi Dañu bok demando ci Bukhari di président de la République du Nigeria dañ fa tag dañ fa dajé par coïncidence Ma wax ko mané hôtel bi ñu bok dëkk mak yow 1400 véhicules ont garé le parking bi Cheikh Mahi est ma ci hôtel bi hôtel Hilton Transcorp Transcorp maïtama à Abuja la nekk ñu dëkk waaw loolu de moom mooy dëkk loolu de dafa lenn rek moo koy ah ko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 mané kon de dama suñu ak yow ak sëñ mu projet université virtuelle de Khadim Rasoul avec les les algorithmes de l'intelligence artificielle benen bi organiser la conférence internationale sur la vie et l'œuvre de Baye ci ci réseaux sociaux yi en une journée le Khalif général de nous avons récolter 200 milliards de francs CFA en une journée le calife de chef à Cheikh ah, Islam mon récolter 400 millions de dollars pour nous tàmbali les travaux de ce TGV Mon une révolution l'Afrique, Afrique révolution dans le monde Si ma neexoon ma bàyyi projet boobu Nous wax leen ci li ñu indi muy Le la pour ndaw ñi le Dóor junior le cartable du premier emploi Nous xam naka dañ de stampé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 ayal ko waaw li may wax nii lu am solo la sëñ Assane. ak dégloo ak dégloo. sëñ waaw. soxna Awa Konte. waaw soxna Awa Konte sama suñu lépp la. walaay ba waaw. macha allah. moo ko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 Al-Hassan a été clair Mais que à partir du 31 nous avons une majorité à l'Assemblée nationale daañu leeral article bi Macky Sall du am troisième mandat ci c'est important. c'est très important. et et li tax nga wax ko da ngay leeral lu ci nit ñi parce que gis nañu ñu ngi dérouler suñu programme ñu yaakaar ne am ben force bu est kenn nekkul ci te el ba mbokk un message au président de la République avec avec tout le respect qu'on lui doit c'est une institution de la République la plus élevée d'ailleurs Je vous ñaan ci ñaan bu que consciencieusement depuis nga dix ans am 2 deux ans yo ci a toftal Vous ñaan yàlla nga yeggale ko ci mais vous la organiser élection Vous bokkul ci sutura ci njëkk ak teraanga te li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

dégg nga de wax ji mooy tàccu gu foor te daggul. moom laa bë yàgg lool moom laa bëgg mbokk yi moom laa bëgg ngeen jagleel ko. kenn koo xamante ne waaw waaw déglu dama bëgg dama bëgg Ousmane. may ko may ko ko. dama bëgg ma ne ngeen jagleel ko kenn koo xamante soo ko ko defalee. dafa mel ni defal ngeen ko ñi jóge ci région yëpp ya. ñëw fii fekke bis bi soxna o reytaal maa ngi lay ziar di la nuyu standing ovation bi dama bëgg ngeen defal ma ko abdourahman diaw abdourahman diaw laa bëgg ngeen defal ma ko ndax taxawaayam ci coalition bi ñu ngi lay sant di la gërëm